biwu soxali jigéen nag mooy euh, dafa nekk ci Saint-Louis di œuvrer c'est régional yaa y a quatorze il y a yëpp si la ñu bokk ñun se Saint-Louis ñun ñooy soog a def suñu première édition ñun ñoo si siy a jot pour def suñu première édition thème bi tey mooy euh, rôle jigéen dans la société jigéen lan lay tekki ci société bi ndax xam nga jigéen li muy teg societé bëri na li ma naan jigéen rek mooy société jigéen su baaxee societé baax su bonee société bon waaw loolu moom mooy suñu rôle suñu taxawaay daal la ñu war a taxaw dëggal ko ñun surtout jigéenu ndar taxaw dëggal suñu bopp daanaka sax dëggal nañu suñu bopp ndax fii ku xëy yaa ngi teel a xëy du guddee wàcc waaye nag pour taxaw dëggal suñu bopp xam ñun ñooy kan ñu jox ñu suñu valeur fii au Sénégal partout dans le monde plus particulièrement fii à Saint-Louis tey nag loolu dañu ciy taxaw tey loolu lu ñu metti la ñun suñu réseau bii keroog bi loolu amee dañu daal di daje suñu biir daal di ciy waxtaan daal di koy naqarlu naqarlu ko ba fu naqarlu yam dem nañ ba buntu hôpital taxaw ñu nag suñu présidente bii ak ñun ñii ñëpp ñu àndal naqarlu loolu ñu wax ni metti nañu di ñaan yàlla loolu bu mu fi amati te xam ne lii wax jigéen mooy société jigéen mooy jur lu baax jigéen mooy defar moom mooy yàq di ñaan yàlla suñu mbokk sage-femme yi nga xamee ne que ñun ñoo ànd ñoo nekk jigéen ànd ak ñoom lii bu ñu dalati mukk di ñaan yàlla yàlla bu mu fi amati